ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci li nga xam ne mooy euh, abonnement yi nga xam ne yéen a ngi koy continuer di ko def seen seen préféré Aladji Malick TV abonnement yooyu mu nekk mbégte lay doon ci boobu boo xam ne euh, daanaka ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax di gis la nga xam ne euh, mooy programme ba info yi nga xam ne moom la ñuy faral di def ci li nga xam ne mooy YouTube bi info transfert yooyu di am lu njariñ di nekk kaddu yoo xam ne kaddu yu dëgg lay doon ngeen koy gis seen seen préféré dañuy commencé euh, xibaar yi mi nga xam ne mooy euh, kubu mi nga xam ne fi mu toll ni mi ngi en l'aise te loolee euh, moo ko xamleel boppam ci compte Twitter Twitter nga xam ne maa ngi koy yebbi ay kantu ay kaddu di xam la ni moom mii nga xam ne moo nekkoon ci Real Madrid fi mu toll nii mi ngi en l'aise maanaam mi ngi ci bët set goo xam ne leer na nañ ñi gannaaw ba nga xamee ni waa Real Madrid jaay nañ ko ndax ab beeg àbb bi da cee sonnoon ba nekku ci woon en l'aise waaye fi mu nekk nii officiel na Real Sociedad jënd na ko lu toll ci juróom benn million d'euros yu teg genn wàll 6 ah, virgule 5 ah, million d'euros Real Madrid bu ngeen gisee dëkk bu bakken bi fa Miami nga xam ni mooy réew réewum États-Unis eh, fii lañ leen dalal ci quartier bi nga xam ne lépp ñooy borom ah, daanaka dañ leen ko hébergeel nga xam ne mu doon quartier boo xam ne bu yaatu la ci noonu ñax ma naat na lépp nga tolloo fële nga xam ne moo nekk Miami ci quartier boo xam ne daanaka bariwul ay dugg dugg ki génn génn kon ñi ànd ak Carvajal foofee mën nañ caa noppalu nopp boo xam am solo mën a gis seen bopp préparé fa la nga xam ne mooy match yi nu war a yebbi foofee nga xam ne daanaka euh, fii moom euh, képp ko xool di xam ne quartier bu euh, dal la bu am jàmm ak salaam ak afiya la ki am jàmm ak salaam mooy Manchester United ñetti match eh, ci pré bi ñetti victoire yoo xam ni eh, bi yu bari ak moins de bi yoo xam ne eh, jël nañ ko gone yi ànd ak Henry Maguire nga xam ni fi mu toll nii daanaka ñi ngi ci seen gundaandaat waaye nag loolee du dara ndax loole sore nag li nga xam ne mooy championnat anglais bi nga xam ne saf sàpp dis kan la àndal ak Ligue des champions bi nga xam ne ñoom duñu ta dem waaye dañuy gën a góorgóorluwaat préparer seen bopp nekk ci li nga xam ni mooy njobbaxtalu classement bi mën a dem ca Ligue des champions